abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd yéen ci benn secret kiis kiis bu ama am doole kiis nag sëriñ daara yeeg ndonga daara yeeg doomu daara yi ñooma gën a xam mooy lan waaye ci fàttali rekk kiis mooy loo xam ne doomu aadama bi da koy jëfandikoo di sàkku ci yàlla mu may ko xel mu neex ubbi dënnam may ko intelligence waaw lool nag baax na ci kuy jàng alquran baax na ci kuy jàng tubaab baax na ci kuy jàng métier baax na ci kuy jàng commerce muy njaay ak njënd baax na daal ci képp koo xam ne day yëngu ci loo xam ne da cee bëgg a bëgg jariñu ndax xel mu neex yeewute intelligence ku nekk a ko soxla mbokk yi kiis gii ma fas yéene indi tay day képp ku ko jëfandikoo incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla yàlla dina ko may xel mu neex lool ba lum jàngati dina ko mokkal dina ko mémoriser dina ko capter lu mu déggati dina ko jàpp ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi kiis gi fu mu nekk ci alqur'aan kiis gi mi ngi ci suuratul aala suuratul aala mbokk yi sabbix isma rabbikal aala ku ne xam na ko ci saar woowu kiis gi nekk moo tax alqur'aan bàyyiwul dara et itam ay code la rek ay code la mbokk yi waaw mbokk yi kon ñu dugg ci kiis gi suuratul aala ana nuñ koy jëfandikoo ci wàllu kiis ndax dañuy jàng saar wi yépp wala benn aaya lañ ciy jàng wala dafa am aaya yuñ ciy jàng am yu ñu bàyyi nu muy demee mbokk yi nañu bokk déglu leeral yi ak xel te jëfandikoo suñu xel yi incha allahu rabbi dina leer mbokk yi ki bëgg jëfandikoo kiis gi nim koy defee mooy nii day ubbee audu billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim daal di jàng juróom ñaari aaya yi njëkk ci suuratul ala juróom ñaari yoon tamit la koy jàng soog a eggale saar bi loolu defe naa ne leer na ci ñi amuk dégg-dégg waaye dinaa gën a leeral ndax leeral ga doyut kon boo nee audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim da ngay jukki juróom-ñaari aaya yi njëkk ci suratul ala nga jàng ko juróom-ñaari yoon muy les sept premier versets de la sourate al ala sept fois soog a continuer li des ci saar bi mbokk yi juróom-ñaari aaya yi njëkk ci suratul ala mooy lan ginnaaw audu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahim sabbix isma rabbika al aclaa alladi xalaqa fa sawwaa walladi qaddara fa hadaa walladi axraja al marcaa fa jacalahu gusaan axwaa sanuqri'uka falaa tansaa إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى baat bi neexul tajwid bi mokkul waaw xam naa moom baal wàllu baat bu neex ak tajwid xale yi ñooñu ci man fuuf suñu doom yeeg jarbaat yeeg sët yeeg sëtaat yi waaye ngeen jéggal ñu kon loolu mooy juróom-ñaari aaya yi njëkk ci suratul ala muy li commencé ki sabbih isma rabbikal ala ba ci illaa maa shaa allahu innahu yaalamul jahra wa maa yaxfa juróom-ñaari aaya yooyu moom ngay jàng di ko répété di ko répété waat di ko baamtu di ko baamtuwaat bam mat juróom-ñaari yoon muy sept fois bu juróom-ñaareelu yoon bi matee nag muy ginnaaw juróom-ñaareelu yoon bi wala ginnaaw septième fois bi wala après septième fois bi nga sooge eggale saar wi muy jël li commencé ci wan yassiruka lil yusra fa dhakkir in nafaati dhikra ba ca suxufi ibrahima wa nga daal di tëje solaatu ala nabi muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wasallim wala baneen suyra boo man ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kiis gi nag niñ koy jëfandikoo du lu ñuy sangoo du lu ñuy lu ñuy naan moom daal soo jàngee li ma leen waxoon sànq ak ni ma ko waxee ba mu mat danga koy ëf ci sa ñaari loxo ëf mooy soufflé ci tubaab wala tëfli daal di koy raay ci sa xar kanam incha allah yàlla dina la may xel mu neex ba loo jàngati mokkal ko loo déggati jàpp ko te du la rëcc incha allahu rabbi mbokk yi dañ leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di aimer ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaam